mong Pikan now Mongi now di now di doge yek se sama dom Nanga yanga biwe nan kewe yel sadom Bumage nyu yeten lir yeten na lir Liro liro Munyewe jangal koram Liro sama dom nanga topp baay déggal yaay li neex mooy fa nga judd mboole cosaan sama dom nanga topp baay déggal yaay li Yetanali. neex yetal Liro, liro, bu ñëwee jàngal ko chân nào mang đi nào đi nào đi đâu tới yak si sama do nang ngang chang ngang bi wai nan cơ wai yan sa do bung mang kê nhau yết đơn đi biết chân nào mang đi nào đi nào đi đâu tới yak si sama do nang ngang chang ngang bi wai nan cơ wai 为难的微 asalaamaaleykum waa Yoff ñu ngi nuyu ñëpp ku nekk sa tur ak sa sant man maay docteur euh, Ngalla Samb di président commission action sociale sanitaire et protection de la petite enfance bu APECSY ñu ngi ñëwoon tey si benn cérémonie bu solennelle parce que APECSY ni mu ko baaxoo di def année yi yëpp dafa am benn chaque année dafa am benn contribution boo xam ne ni en matériel boo xam ne daf koy apporter morgue yi xam ne ñu ngi nekk ci si Yoff muy morgu Mbelelaan ak morgu bu jàmmalaay donc ci lolu tay ji ñu woowoon len effectivement pour remettre len appui logistique boobu mu nekk lo xam lu am solo la c'est traditionnel moy chaque année effectivement dañ koy def pour jappalé effectivement Morgu, parce que dafa nekk fo xamante ni effectivement nit ñi duñ ko bàyyi xel trop nit ñi peut-être buñ amé soxla rek lañ fay donc jafe-jafe yi xam ne ni ñoom moom la ñuy si par rapport ak outil yi xamna xam ne moom la soxla effectivement pour def sen liguey nit ñi effectivement duñu ko mesurer bu baax donc ci lolu chaque année APEX yi gis na effectivement appui bobu day nekk lu war mu mën ko def jëmele ko ci effectivement ci morgue yooyu donc tey nag ñu responsable morgue bu Mbelelaan ak responsable morgue bu pour effectivement remettre leen matériel bi xam ne effectivement wan lañ leen ko sànq donc mu nekk loo xam ne lu ji rafetlu la en même temps aussi

place yu mel noonu day nekk lu lu am solo donc li gën a important daal mooy magnifier affaire bi mu nekk une tradition bu Apix def mais en même temps mu nekk une invite pour képp bonne volonté la nga mën apporter sa soutien si effectivement liggéey bi xam ne moom la def si si morgue donc en gros daal loolu la nekkoon nañ koy wax donc di rafetlu effectivement jotaay bi di nuyu ñëpp di gërëm ñëpp si turu président Apix et tout le comité directeur effectivement de de l' ay nuyu waayu ñëpp di leen sant di leen gërëm jiital si nuyu bi xalifa Abdoulaye Thiaw Laye xalif général des Layènes ak imam Muhammad Ndoye maa leen di nuyu di ñu nooyu bi di ko teg seen loxo pour ñu tekk si loxo yaafu yëpp lii waa APS def lu rafet c'est ñi nga xam ne ñoo nekk si di liggéey dañuy soxlaa yu mel nii muy ordre de coton yëpp dañ koy soxlaa pour entretien morgue bi ñoom ñi siy liggéey nag chaque année APECI defal leen lii kon ñoom ñoo ngi sant waa APECI waa APECI ñoom fàttewuñu leen benn yoon ñu leen di gërëm di leen sant si lii nga xam ne moom defal man day ma ma bindoon pour jox ko waa APECI waa APECI daf li ma bindoon yëpp jox lan ma ngi leen di sant di leen gërëm ak waa jàmmalaay ñëpp ak waa laayeen ñëpp ak waa yoof ñëpp wasalaam ngeen baal noox aouzu billahi min asheytan rajim la hawla wala quwata illa billahi al aliyyil azim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayyidina muhammad limamullahi mahdul muntazar sallallahu taala alayhi wa sallam ñu ngi sant yàlla bu baax di julli si sayyidina limaamu alayhi salaatu wasalaam di ziar même xalifa Baye Abdoulaye mu dolli fee di ziar waa Yoff yëpp di ñu teeru Yoff yëpp comme ni ko gars di ziar tamit waa APEX di leen nuyu ji leen tamit remercier ci act bi nga xam ne moom lañ def duñ ne guléet ndax ñun ça fait plus presque de cinq ans man mi yàlla def na si ndigalu Pape Baye Naar mooy Mamadou Diagne moom mi nga xam ne moom moo yor lu jëm si nettoyage u jàmmalaay mausolée bi en tant que tel ak yeneen xabru yu ndaw yi kon ñun si taxawaay boobu lañ taxaw ñun fi daan taxaw ndek chaque année ak mambañ bi nga xam ne moom moo yor morgue ba ci jamono jam si yàlla ji Baye Bilal ñoom ñoom kon duñ ndax chaque année APECSY mu ngi def lu mel nii kon ñun dañ koy mesurer rek di ko magnifier à sa juste valeur di wax lépp luñ man ren rek yàlla nañ ko man lu ko ëpp fuuf déwén yàlla na dem ba lii rek du yem ci morgue bi ndax xam nañ sax ne APECSY deful loolu rek ci morgue bi social bi nga xam ne mu ngi koy def ci Yoff d'une manière générale yëpp ñun teg nañ ci suñu bat parce que Yoff lañ kon dañuy magnifier geste à sa juste valeur di leen remercier di leen wax rek euh, dëgg yàlla ñun kontaan nañ ci bu baax ndax duñ ne guleet chaque année la ñu ngi koy def kon yàlla na ko yàlla yokk mu dem ba nekk loo xamante ne nii daal xam nga dina dépasser fi yëpp daal ñun daal gis nañ ci suñu bopp bu baax a baax a baax kon Pape Baye Naar ak Matar Samb mi nga xam ne moom laa àndal waa Jàmmalaay entretien ñi nga xam ne ñoom ñoo yor mausolée yi ñu ngi rendre un vibrant hommage ci waa apexi di leen wax merci yal na yàlla gën a dëgëral seen taxawaay barke Baye la yàlla ma salli ala Seydina Muhammad voilà asalaamaaleykum mbooloo mi euh, yéen ñuy seetaan ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk euh, xëy na fa nga toog sa tur sant. li mm-hmm. nga xamal ne lii ngeen dégg bon xale yi wax ko léegi wax dëgg yàlla noonu la demee APEX yi dooru ko tey daana ko def ay at dooru si li nga xamante ne mooy euh, jàkke yi maanaam juma juma laayeen ak juma yoof APEX yi séq na ak ñoom loo xamante ne yàgg na te loolu saa su ne lay doon li nga xamante ne mooy travaux yi ren am na contribution boo xamante ne si def na ko da ko budget bi nga xamante ne comme ni mu ci liggéey loolu la ci euh, namoon ba am na lu ñu yóbboon jumaa ja ren incha allah ñu ngi si def ñu ngi si budget yi te namoon nañu aussi la ñu defoon daaw mu dem si jumaa ji liggéey bi APEXI incha allah dana ko taxawee na mu na mu ko daan defee ak na mu ko mënee bu soobee yàlla loolu daal lañ doon toftal ci li nga xamante ne mooy nit ñuy joxe léegi nii mooy ñu jëm si moor gi nga xamante ne ñun ñëpp day nekk bu ñu mujje kon nag foofu ña fay nekk comme ni ma ko waxee sànq rek dafa war ñuy am santé bi nga xamante ne moo war parce que nit bu génnee àdduna aussi am na moom yàlla dafa dem kër gu mujj gi kër gu dëgg gi fi ñu fi des dañuy dellu si fi nga xamante ne dafa xaw a éphémère donc santé lañ fa war a mën a am ñoom loolu mooy wala mooy illay li nga xamante ne moom lañ dox. ngeen ba salaamaaleykum